asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul waa kër Cheikh Madiba noo ngi fii ci Touba Daaru Khoudoss kër Cheikh Madiba gi jàkkaarloog bayti ci kanam njabootam gu tedd gii ci teewaayu Baye Serigne Mbacké Sylla mi nga xam ne moo yore kàddug mboolem njaboot gi li waral loolu nag mooy dañuy dëgmal bisub màggal cant ak ñaan ba ñu baaxoo defal Cheikh Madiba Sylla murid saadix ba tam war a doon juróom-ñaareeli fan ci rakkaati gàmm di weer wii nu dëkkmal loolu moo tax sëriñ Mahmadan Sylla joxe ndigal ngir ñu soññee bis bi te woote ko jaar ci kam jëwriñam sëriñ Mahmadan Sylla Daaru Rasaax ak sëriñ Maxtaar Sylla ba agsi ci sëñ Mbakke mu jëbbale ay kaddu ngir ñu soññee bis bi te woote ko. noo yëkk di ay kaddu yoo xam ne ci turu Baye Serigne nga xam ne mooy euh, porte parole kër gi mu jëm ci bis boo xamante ne Serigne Mahmadan ummi xalifa sëriñ Mouhamadou Bassirou daf ko soññee ci ndigalul sëriñ Mouhamadou Mountakha xalifa général des Mourides ci ndigalul sëñ Ahmadou Mokhtar xalifa waaye ci euh, kilifteefu euh, sëñ Moussa Mohamed ak njabootu sëñ Moussa gépp ñu ngi leen di yëgal bis boo xamante ne bii euh, bisu ñaan la bisu fàttaliku jëwriñ ju yatal la woon ci yoon wi jëf jëwriñ joo xamante ne bii daan liggéeyal sëñ Tuubaa ca defoon sëñ Moussa muy jëwriñam bis boobee nag ah, dongo yeesal ko ci bis bi fi bàyyi woon muy juróom-ñaari fan ci weeru rakkaat gàmmo mu mel ne tey jii buñ ko seetee bu weeru feeñee tey jii ci ajuma ji ah, bis bi dana dëppook alxames ah, benn pan ci mois de décembre wala bu feeñu tey te feeñ ëllëg dana dëppook ñaari fan ci weeru décembre kon daal sëñ Mahamadan nee na mi ngi woo góor woo jigéen woo njaboot gépp bu kenn bañ ba kenn bañ a des woo ëtt yëpp ba kenn bañ a des li ko dala ci Cheikh Mamadou Moussa ba ci moom Cheikh mu Mourtala fépp foo xamante ne fii eh, ab donga nekk na fa wala képp koo xamante ni bokk naa ñu yow pas-pas képp koo xamante ni eh, soppee nga ci kër gi mi ngi lay woo ci bis boobu bis bi nag la koy wund mooy fàttaliku jëmm ji ci jàng alxuraan ci Eh, def eh, salatu na nabi ci jàng xasida waaye ci bernde kon nag bis bi eh, la ci ëpp solo tam tam tam ko moo di fa yéene di teewlu waxtu wu ne di fàttaliku jëmu jooju ca taxawaay ba mu taxawoon ci ëttu sëñ mu Mourou Moussa. wax ah, ñooy wax ci kàddug ba sëriñ Ndoye mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ ma Madi Bisil la gépp ñi ngi wax ci kàddoom Baye Serigne nee na mi ngi nuyu ñëpp di leen siyaare nee na mi ngi leen di soññi màggal gi nga xam ne. mooy màggaluk sëñ Madiba Sylla bu ñu nee màggal nag ñëpp xam na ni ñuy waajee màggal nee na mi ngi koy soññi mboolem ëtti sëñ Madiba Sylla yëpp xam naa eh, wax ji du mën a gudd waaye mboolem ëttub sëñ Madiba Sylla rek Baye Serigne Ndoye nee na mi ngi lay soññ ci màggal gi ñu waajal ko te takku te laxasaayu te lépp loo xam ne lu ñuy war a def ci màggal la képp kuy ñëw nga bàyyi ko xel te defee ko noonu noonu ko sëriñ bi bëgg. di wooti turu fédération Serigne Madiba Sylla di woo mboolem koo xam ne lëkkaloo nga ci fédération sëñ di Sylla noo ngi lay woo ci turu Serigne Bara mi nga xam ne moo jiite fédération bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la àndal waaye noo ngi woo nag ku nu ko bokkal mooy juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne moom la sëñ Madiba Sylla am yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem sous section yi ak fédération yi sous sections yi bitim réew ñoo ngi woo ñëpp. ndax ma Serigne Madiba Sylla dafa yaatu cere yi lool mën nañu nite nga Amérique maa nga ca Italie fépp fu ci waay ne Espagne Amérique Côte war soññ nañ ñëpp noo ngi woo ñëpp ci turu fédération sëñ Madiba Sylla euh, yàlla yóbbu nu caag jàmm ñu ànd caag nañ ko bëggee woon ci yar ak teggin defe ko rek nañ ko daa defee. di yëkkati suñu kàddu ci turu daayira matériel wu kër sëñ Madiba Sylla ci njiitul Serigne Mahmadan Sylla Serigne Mahmadan Ba Serigne Soxna Cuba Sylla ak Serigne Moundiaye Diop mi nga xëy nii moo leen fi teewal. ñuy yëkkati suñu kàddu ci suñu tur di soññewaat bu baax ci liggéey bi nga xëy ni ci leen bokk ak bis bu màgg bu tedd bi nga xëy ni moom lañ dëgmal di juróom-ñaari fan ci rakaat ji gàmmo ñu ciy fàttaliku si Ahmadou Bassirou la di ca soññewaat bu baax mbooleem ku yaakaar sëriñ Ahmadou la ñu ngi la ciy soññ bu baax a baax a baax ñun daa daayira matériel bi rawatina nag béréb yi nga xëy ni sëriñ Ahmadou Ba defoon na fa daara doon fa liggéeyal sëñ Tuubaa doon fa jaamu yàlla di fa liggéeyal sëñ Tuubaa ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ bu baax ci liggéey bi ak ci daayira bi nga xëy ni mooy daayira matériel bi mbooleem daara joo xëy ni sëriñ Madi Ba sancoon na ko di fa jaamu yàlla di fa liggéey Sëriñ Tuubaa rek ñu ngi lay soññ bu baax di soññ waa diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ waaye di soññ mboolem ku fare ci wet gii ñu nekk di wàllum Touba ak gox yi ko wër yëpp ñu ngi leen di soññewaat bu baax ci bis bi nga xëy ni dëgmal nañ ko ndax day mel ni organisation bépp mi ngi ci loxol daayira matériel ko sëriñ Madi Ba si la kon ñu ngi ciy soññi góor ak jigéen mag ndaw. kon nag euh, nuun na sinig nu ñuxur baay sëriñ fe andoona yee ten saxu o ñuxurole no mbind Cheikh Madiba Sylla euh, nu layanga yee koy nuun a sinig e jom and ke nuun euh, yaam ten ref jambaar fe andoona yee ye andoona yee a laqa o ngidim Sëriñ Tuubaa ne andoona yee cambaar ke yo ne fa Sëriñ Tuubaa fop bota inoroyo ganaar a ndefoyo ceen bota laq ngërmel serigne touba fe andoona yee ten lay uye kat oxu gidmuma fata leeronge rooga gidmang yonent fe gidmang jambar in faaga koy andoona yee ten jiyaadik u siin ten na xooytatel ten na xooytel magal mene touba daaru xudus yaa andoona yee o nqool wata ba jag ñaal ɓetu ɗik no ñuxur baal serigne koy fe andoona ten saqu o ñuxurole no mbind to jawrin fen mbind jawrin fa maak fe a ne'el euh, Sëñ Dan Ummi a ten na xooyta magal fe ya andoona o nqool wata ba jeg ñaal ɓetu a Baye Serigne koy a sinig fop yaam sinig o feet yomal xayaam den fop a leera ye Cheikh Madiba Sylla yakaru yaam lang xa sinig ten Serigne Touba cooɗ'un ya koy nuna sinig ka bug nun fap o sirñoxale ka bug nun fap nu mbabu ku ten o kiina mos ina fi yaa cheikh madiba refna meen fa ku war ina leng fata fin xar nun fap fat nungum, ndef ndok leng kut idola sidik, ngar sante ida cheikh madiba basile fene a touba mene daaru khudus parce que a karu, nu ne fo fet ten som i kon koy bes fene in way ngada roog oxu andoona yee tega a roga fi anong pajub aajo saayir fa baatin. waaw ah, sunu woote nag ñu ngi ko jëmale ci mbooleem koo xam ne da setoo ci sëriñ Maxtaar Marema rawatina ak sëriñ ba moo xam góor nga moo xam jigéen mag nga wala ndaw nga noo ngi lay soññ ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne dañ ko bokk te mënuñu koo séddoo te jàpp naa ne noonu rek noo ko war a def. ndax ko yalla dimbalé ba nga am mam ju melni cheikh Madiba jëlone ak la xassayam tak ko liggéeyal serigne mbamba ba am ay ngeureumam japp na ne koku kenn waru la jitu ci mom ci liggéeyal ko kon nak ñing ci wo mbooleem ko xamné da nga sito ci mom mo xam goor nga wala jigen nga ak sunu mbokki mbakki mbakki yi nga xamné yalla yàlla dimbalal na ñu bok ci serigne Touba waye taw fee xeewaat borom taw fee xeewaat leen leen ci. Serigne Madiba di ay kilifa ñoo ngi ñu ngi leen ci soññat di leen ci woo. mu mel ni dañuy ñëw ci dongay laxasaay yi nga xam ne noo bokkoon liggéey bi doon ko liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew fépp fu fi waay mën a ne na nga bàyyi sa xel ci ne kuréel yi toog fii tey di soññee am nañ ci sëñ Madiba loo xam ne nun rek noo ko ci am. ana luy loola bi nuy màggal fii li muy doon doon mag daana sukkootu su demee ba fajar and ak seigne Moustapha Dia ak ñen ci mag ñi ñew fekk nu ci baas bi daggi ñu soññ ñu ñaanal nu kon su yalla dogalee nuy dox ba mu ñibbi aljana bisam bobé ñu di ci def ay ñaan kon fep fu dongab laxasaay nek bu sa xel nekkee ci lolu war nga indi sa jëf war nga indi sa pas pass war nga indi sa pastef kon nun dañu wara soñé waye kenn waru no soññ te di leen woon ak ci sunu bis bi nga xamné bu sip képp ku yaakar serigne touba nga waaye bisub képp ku yaakaar Cheikh Modou Moustapha waaye bisub képp ku yaakaar Serigne Cheikh Mbacke gayndi Fatma di bisub képp ku yaakaar Serigne Cheikh Mbacke kon noo ngi ciy woo bokk yi ak xarit yi ak taalibe yi muy bisub Cheikh Madiba muy juróom ñaari fan yi mu wàcc woonub liggéey jóge ci këram gi yi dem wuy Cheikh Modou Moustapha di bisub rakkaat ji gàmmu ah woote bi ñoo ngi ciy jiital Serigne Mahmadan sila ummi wàcc ba ci Serigne Mbacke sila Mohamed mu yor kàddu kër gi tàmbalee ko Serigne soxna Assou Mbacke mi mag tay ci jigen ñi ba ci soxna mam la njaareem di wo ñepp di soññi ñepp ñu bokk laxasaayu taxaw ci bis bi ba bis bi mel ni nga xamne non lañ ko bëgge ba mu raw ndortu ci kaw ni nu ko bëgge no ngi siari ñepp ñoo ngi nuyu ñepp di siari ñepp di balu ñepp ak Oki yi bis maggaluk ngi noonu màggalu cheikh madi ba ñu japp ko juroom ñaareli fan ci rakkaate gamu tuba ci Touba sering khodos serigne bangi ko yëgal mbollem njabotu khadim rasul di ko mbollem mboolem yi aju ci keur serigne Touba rawati yi aju daru khodos ci njitul bay serigne bakay gey ngatch ni ngi ko yëgal mbollem kilifay diine yi di ko mbollem mboolem kilifay yi di soññee ci njangum alquranul karim njangum qasida istighfar ak salatu ala nabi ak bernde mi ngi koy soññi jeewrin yep waye talib yi jiite federation bi ñi ngi kenn ku nekk ci ñom farlu góorgóorlu ci cotisation yi teel a ñëw ngir magal gi cotisation yi moko wara def kon ñi ngi Sonhinha, pô.